wàllum escroquerie visa journal bi nee na dañu ko filmer ci loo xam ne yëgu ko waaye nag fii ci réewum Sénégal na fi ay personnalité yoo xam ne journalistes yi ñoo leen créé waaye nag tur wi nga xam ne moom la ñuy mujjee am moom la ñuy mujjee jëfandikoo maanaam nag ci loo xam ne seen yëfi bopp rek lay doona ndax mbiri nag mujj gi dafay mujjee yomb ci ñoom yéen kaay gi nee li nga xam ne mooy musiba gi nag ñi nga xam ne ay donneur de leçon lañu na leer ne saa su nekk ñoo ngi jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy seeni adversaire lépp loo xam ne def nañ ko ni giraawalee ki njuumte dañu koy mujjee exploité ndax fii ci Sénégal bëri na ñoo xam ne ñaari vice la ñu am maanaam visu jigéen ak visu xaalis ndax fii ci Sénégal bëri na fi ay personnalité yoo xam ne maanaam jigéen ñoo tax ñu fay ñenn ñi xaalis ñoo tax ñu fay ñenn ñi loxo ci poos la ñu leen jàppee jamono ji nag mbiri kilifa bu yaana mara procureur moo yor cëggul gu yama yéene kaay gi di la quotidien wax ci lu jëm ci wàllu mbind mi ci liste électorale yi ñi nga xam ne ñooy opposition bi dañu doon sàkko li nga xam ne mooy extrait de naissance ñu mën cee bindu waaye nag loolee njiitu réew mi di Macky Sall daf koo gàntal yéene quotidien xëy di ko dëggal yéenekaay gi du l'observateur wax ci lu jëm ci wàllu wér gi yaram gi ak kuréel gi nga xam ne ñooy ànd gësëm ñoom nag ñoo ngi alerté nee na ñoom seeni revendication bu dee nag wu ñu ko dana danañu indi gàllankoor ci li nga xam ne mooy wàllu wér gi yaram gi ñoom bala jo caama yéenekaay gi de la na ñu xëy fekk fa docteur Babacar Niang bu suma assistance moom nee na nag lu jëm ci wàllum gestion covid 19 ñi nga xam ne ñooy way politique yi ñoo ko ngar daajoo te xam ne moom la ñu ko yore amul loo xamante ne lu ci baax la bu ñu waxantee dëgg état bu Sénégal dafa ci mbir mi docteur Niang l'info nee ji dañu ko convoqué bu fukki waxtu jotee ci gendarmerie bu Faidherbe Abdoulaye Diouf Sarr moo ko porté plainte yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa Moustapha Diakhaté nee na nag Abdoulaye Diouf Sarr na ñu andi ay tontu ci tuuma yi nga xam ne ma jëmale jaañe gàll ko ci sunu ndonto Thierno Lo jël kàddu gi nee nag li nga xam ne mooy matériel public bi ñuy wax ne dañu koo jaay privé bi loolee dañu koo war a leera la a kaay gi di Walf Fadjri nee ba neexul waaye ndax fii la nekk na doon piccoo ak mbaaloo ak ki nga xam ne mooy professeur Moussa Seydi ñu ne déet waaye Ousmane Sonko def ab sortie muy piccoo ak mbaaloo ak Ousmane Sonko tey nag daanu jina ci ki nga xam ne mooy docteur Babacar Niang yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na njiitu réew mi di président Macky Sall nee ñi nga xam ne ñooy clinique privée yi léegi nag gratuit la li nga xam ne mooy oxygène yi ci bépp clinique privée boo xam ne am na centre de traitement des épidémies gi di li quotidien nee na hôpital Dalal Jàmm jamono ji dafa tëmb ci ndox mi taw yee tax yéene kaay gi ñu xëy fekk fa cadre yi nga xam ne ñoo bokk ci kuréel gi di gëm sa bopp ñoom nag nee nañu marché gré à gré bi nga xam ne jege na deux cent milliards ñu jox ko benn jege ñaale Macky Sall loole nag tey jii danañu ko yóbbu ci OFNAC ak matériel public bi ñuy wax ne dañu ko jaay secteur privé bi yéen gi di Dakar Times nee na Pape Ali Gueye mi nga xam ne moo jiite entreprise bii di Exelec moom nag jamono jii mën nañoo wax ne maanaam marché yu rëy yëpp yëpp yëpp ci secteur de l'électricité bi moom Pape Ali moo koy gagné te nag ñi nga xam ne ñooy corps de contrôle maanaam yàgg nañoo def ay recommandations journal bi xëy ci rapport 2014 ak nag li nga xam ne fësaloon na ci ki nga xamante ni nag maanaam mooy Pape Ali Guèye Mina distribution journal bi de Dakar Times nee na en tout cas li am ba desalla mooy am na ay recommandation yoo xam ne Cour des comptes defoon na ko ministre bi nga xam ne mooy ministre de l'économie et des finances ci Pape Ali Guèye mii inspection générale des finances sàkk woon na tamit ñu ubbi ceeb enquête yéen a kaay gi di réew yi nga xam ne jamono ji na cobbee ci réew mi démb am na accident xam ne am na lu toll ci fukk ak ñeent ñoo xam ne ñàkk ñu ci seen bakkan ca diwaanu Podor kaa gi nee na am njaga njaay bu sëfoon ay baana baana ak minibus ñoo mbëkkante yéenekaay gi de Libération xëy ñu xibaar naan ñu chauffeur bi nga xam ne moo doon dawal minibus bi moo doon nelaw yéenekaay gi de Les Échos nee na ñi nga xam na ñoo ñàkk seen bakkan ci l'accident bi ñoom ñëpp ñoo bokk benn fami yéenekaay gi de la Soleil nee na insécurité routière moo am ci réew mi ndax lu toll si juróom-ñaar ci ay weer am na lu toll ci junneeg juróom téeméer ak fanweer juróom benn ci ay accident yoo xam ne am na ci réew mi li am